voilà salaamaaleykum waa Bargny salaamaaleykum waa Tëngéej salaamaaleykum waa département donc euh, Youssou Gueye Yoos coalition Amit Badara Diop ñëwoon déposé candidature am xam ne dañ ko doon lam-lam ëllëg Sénégal ëllëg Sénégal defar suñu gox ëllëg Sénégal defar suñu gox donc ñi nga xam ne dañ doon lam-lamee la candidature de Aliou Badara Diop ñun suñu récépissé mu ngi nii on est les premiers à recevoir le récépissé ici au de Paris donc ñun ñoo jëkk a déposé suñu suñu liggéey rafet na jot nañ suñu récépissé ñu ngi ñibbi préparé suñu campagne donc ngeen xam ne léegi Alioune Badara Diop nekk na candidat ñu doon wax ne du nekk candidat c'est on est candidat moo nekk nii moo nekk nii récépissé baa ngi nii donc ñu leen di ñaan def élection yi si jàmm kii gagné mu gagné. ki nga xam ne dañu perte ñu xam ne perte nañu ñu félicité ñëpp mais nag ngeen jàpp ne dina ñëw dal seen kaw le 23 ñu jël maire bi ñu jël maire bi liggéeyal waa Bargny ñëpp kontaan vraiment maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sàkku ñaan nag si population Bargny ñu ñaanal ñu ñu def élection yi si bisimilah terminé ko si alhamdulilahi rabil alamin donc ah li ma leen di wax di leen souhaiter bonne chance si dépôt yi dépôt dafa métti de dépôt dafa métti c'est un travail de une semaine donc ñu ngi sant yàlla ñun chaque jour quatre heures du matin la ñu tëdd ah trois heures du foofu donc sant yàlla ñu ngi sant yàlla bi xam ne suñu candidature a été acceptée et que lépp leer na ko vraiment Vraiment. C'est bon. voilà. Vraiment, on remercie les membres de la préfecture. Ils nous ont reçus, on a déposé notre candidature. La candidature a été acceptée. À Barny, il y avait des doutes sur la candidature d'Albadre Maintenant, je vous ai montré tout à l'heure le récipice de dépôt. Et que nous souhaitons que les élections se passent dans la paix. Et que les électeurs et les candidats sachent que Paris, nous sommes tous de Paris. Et que et que les élections sont... Euh, voilà le préfet gis il est là euh, le préfet au téléphone euh, qui est en train également donc de voir si tout se passe bien pour donc l'arrivée des dépôts rien ne va vous échapper vous allez donc assister ensemble avec nous à la période de l'office. c'est une première on remercie beaucoup euh, donc, ceux qui ont eu l'intelligence de créer les réseaux sociaux, l'intelligence également de mettre à la disposition donc, euh, de l'être humain ces outils euh, intelligents, les machines intelligentes, les smartphones, parce que ça nous permet d'être en live et à moindre coût, mais également avec du petit matériel. là, la préfecture en attendant d'autres événements on vous revient tout à l'heure le temps